بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين chers internautes chers abonnés maa ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen wax nag tey dañ leen loon seen benn sujet bu am am solo muy l'importance de la communication dans le couple ñu di leen wax nag mën ngeen ñu suivre si Spotify si euh, chaîne Firdaws Coaching ak ci YouTube Instagram TikTok Facebook kon ngeen abonné partage vidéo bi bu leen fàtte aussi bu ngeen bëggee bokk suñu communauté gratuite euh, réservée uniquement aux femmes après dinañ leen euh, jox lien yi bu ko defee ngeen mën a ñëw suñu whatsapp ñu dugal leen donc mbokk yi ñu fas yéene waxtaan nag li nga xamante ne mooy l'importance de la communication dans le couple ñu bëri dañ jàpp ni communication mooy nañu waxtaan waxtaan waxtaan nañu wax ku nekk wax la naqari wax la neex wax li fekk na comme niñ ko waxee communication dafa complexe il est temps kenn ku nekk si doomu aadama yi nga jàng communication avant dara di xew pour sa bopp ndax communication dafa nekk aspect boo xamante ni dañuy wax ni fii ñu toll ni moo téye àddina ndax ñëppay communiquer ndax nit sa communication tax na ay nit bañ la te defoo leen dara xamuñu la mais aussi sa communication tax na ay nit bëgg la te defaloo leen dara te la ndax communication suñ koy wax volet bi ci jiitu mooy nga xam li ngay wax xam kañ nga koy wax xam fan nga ko war a waxee xam kan nga ko war a waxal ak ton bi ngay utiliser ndax nit mën na wax wax boo xam ne wax na ko ak dal mais ton bi dafay yëngal émotion nit ñi léegi-léegi nag euh, nit ñi dañuy fàtte ni <laughs> communication bu ñu koy jàng dangay gis volet boo xam ne mooy volet émotionnel bi des fois sooy wax ak nit soo agréable da koy sentir li li ngay wax day dugg ci xolam mais sooy wax ak nit su amee tout frustration wala mu am tuuti reproche wala mu am tuuti jugement li nekk ci say émotion nit ki da koy recevoir énergétiquement bu ko defee nga wax ak nit ki nit ki la ah yaa ngi may wax lii wala yaa ngi may wax laa de ngeen ko non non pourtant jublu ma ci loolu ah, parce que li nekk ci sa biir xol te yow ñame woo ko wax say émotion mu ngi koy communiquer ba nit mu ngi koy yëg wala léegi wax nit dara mu gis boppam nga ni ko da nga gaaw a mer ah da sa bopp da nga compliqué et pourtant loolu nga ko wax noonu ni dafa gaaw a mer dafa gaaw a compliqué au début assumé woo ko woon te pourtant léegi assumé nga ko kon dañuy wax ni euh, ku wax feeñ mooy boo waxee même say parole bu gentil say émotion daf lay trahir kon suñu duggee nag ci biir couple bi bari na ñoo xamante ni balaa dara di xew li nga xam ne mooy base humanité base empathie base doomu aadama amuñu ko mooy da ngay nekk nit ci couple mënoo waxtaan ak moom say problème nga nekk nit ci couple muy góor wala muy jigéen ñaari ñëpp lay waxal. mënoo am ci nit ki confiance wax ko la neex wala la naqari wala dénk ko sa secret. tey sa partenaire nekk koo xam ni yow ragal nga koo wax say peur boo amee loo ragal ragal nga confier wu si moom soo amee lu la dal ci jaaxle ragal nga confier wu si moom soo amee sax mbégte ndax mën nga am mbégte ñëw waxtaan ak moom di ko xamal sa mbégte mu yamale la wala nga mer di ko xamal da nga mer mu ne la moom lii kese dafa jar mer. maanaam loo ko wax ci say émotion mu sous-estimer ko wala mu dévaloriser ko ba yow tu te am à miette wala nga daw kontaan ñëw di ko wax nit ki nit ki ignoré la comme si te gisu la xam nga dañu war a xam ne émotion dañ ko war a jàng comme ni ñu koy jàngalee xale yi ndax derrière chaque émotion yaa a un besoin te nit soo mënul décrypter émotion nit ñi doo mën a xam seen besoin soo mënul xam seen besoin doo mën a communiquer ndax aptitude ci communication def ci bokk nga xam nit ki ci ban état la toll lan la soxla sama jëkkër dafa wàcc mer frustré lan la soxla sama jëkkër dafa wàcc kontaan lan la soxla sama jëkkër dafa wàcc jaaxle lan la soxla loolu ça ça prend mu ngi fees dell si réseaux sociaux yi ci Google si YouTube boo tàppee ah euh, comment apprendre les émotions di nga ko jàng tax xam émotion dafa am solo ci sa bopp avant dara di xew mais aussi si nit ñi ngay dundal ci àddina bi mais aussi say doom mais aussi sa borom kër ndax gis nga am empathie. mën a consolider consolider nit ki émotion am à chaque fois mu am benn besoin day tax nit ki day sawar di waxtaan ak yow day bëgg di waxtaan ak yow parce que waxtaan ak yow ba pare day sentir ne am na poids bu yenneeku mais aussi day sentir apaisement mais confiance bi day gën a dëgër mais day nekk loo xamante ne aussi day gën a yëg. ci boppam que ni ah sama partenaire mën naa waxtaan ak moom ndax à chaque fois waxtaan ak moom je suis soulagée mais su fekkente nit ki dalay wan ne amoo droit waxee ko fi doo ko fi waxee wala boo ko waxee mu minimiser mu sewal la mu ñàkk la fayda loolu day tax couple yu bëri di kalaj kalaj ji pourtant nit ñi ñu ngi communiquer mais manière bi ñu communiquer baaxul parce que nit ki su fekkee da moom tu ne te tu ne te sens pas respecté. tu nit ki respecté na li ngay yëg li ngay sentir ci sa xol mais da koy minimiser wala daf koy banaliser loolu tàmm lu bon la te da gis ba ci ay waajur yoo xam ne seen doom bu dawee yuuxu tiit ñu ne jàll feew da nga tàppet wala sa doom daw yuuxu eh, reetaan nga ne ko pousa fee da ma sonal wala donc ces genre de choses là dafay yàq nit dafay yàq doomu aadama parce que kenn du noonu ak bu amee émotion beneen bi nga xam ne aussi ci euh, communication bu malsain mooy booy waxtaan ak sa partenaire soo bëggee xam ci moom dara doo ko étaler clairement mais dangay def ay sous-entendu ak di ko manipuler par exemple bëgg nga xam sa sa soxna fu mu demoon wala boog bëgg nga xam lu mu defoon yaa trois ans au lie nga laaj ko ko directement mu xam li nga koy laaj mais déedéet da nga ko naan ah man de yaa trois ans wala yaa un ah, balaa ma la doon takk defoon naa lii demoon naa fii gisoon naa fa kii pour moom tamit mooy la ah defoon naa lii demoon naa fii nangam sangam nga téye. jour bu ngeen xuloo nga ne ko moom jàllal fee yow mi nga xam ne nangam sangam parce que am na ñoo xam ne dañuy lekk di sëy mais à chaque fois sa partenaire euh, dénk la dara ci secret wala ci paasim wala ci famem wala ci liggéeyam buy jotee ak yow nga ko koy lalal ci digg tap bi loolu yonent bi sa sam ne dafa bokk ci jukko naafeq yi mooy bu xuloo ak yow dalay xas dalay weer dalay sosal te loolu dafa bëri léegi ci couple yi xuloo nit sosal ko wax ko baat yu salte waxal ko loo xam ne dala leer ni danga ko sos créé ko loolu dafay bokk ci jukko yi nga xam ne kooku bu fa jógee foofu lay jógee dootul communiquer ak yow abadan daay man dapat parce que nag c'est pas normal ngeen nga xuloon nit ki rek nga waxal ko loo xamante ni tey du jukkoom même bu dee sax jukkoom la ci biir xuloo éviter di gaañante. beneen bi aussi mooy nit ki sa borom kër wala soxna am journée bu metti wala mu dem tukki wala mu dem quelque part dund fa expérience yu metti mu ñëw bëgg ko partager ak yow nga di ko sewal. wala di ko xamal ni de toutes les façons wax dëgg yàlla intéressé wu ma di ko xamal ni li ngay wax amul benn njëriñ loolu tamit manque d'empathie la tudd te loolu day yàq communication. kon en ce moment doomu aadama bu nekk war nga taxaw nga xool nga laajte mais réellement kon est-ce que kon li ñuy def communication lañ koy tuddee wala wax rek lañ koy tuddee ndax bu ñuy wax communication muy wax tànn mooy wax ji ngay wax da nga koy tànn da nga koy segg da nga koy càmbar ngir mën a xam li ngay wax lu mu doon. ndax segg li ngay wax jàng ko càmbar ko. day tax nga xam ne communication dafa may base dafa may volet dafa may pilier te pilier yooyu suñ ko jàngee xam ko wax bi day yomb te waxtaan bi day indi bénéfice te day ubbi xol yi te dafay raxas xol yi mais dans le cas contraire da ngeen di wax ba pare jëlee fa problème yu ëpp yi ngeen doon jéem a solutionné. ñu xam ne tamit euh, waxtaan bi ngeen di waxtaan da ngeen di waxtaan pour ut jàmm ndax couple tey mën na am amu leen problème amu leen dara da ngeen toog ni di waxtaan comme ay nit ñu dëkk mais waxtaan bu fekkente ni tout le temps day virer au chamade. waxtaan mu viré ci xuloo viré ci waxante commencé viré ci werante loolu il faut couple yu bëri éviter ko surtout jeune couple yi soo ko dugg ci sëy werante amul sens werante dafay yàq ay xol day détruire ay couple te day tax dootu leen mën a waxtaan parce que après dina am kuy braqué wu wala di werante yaakaar tout le yaa am dëgg yaa wax dëgg li keneen ko wax ko jilib sànni ko ci pôle Mali parce que soit disant que xale la wala soit disant que jigéen la wala soit disant que jàngul wala soit disant que euh, donc toutes ces choses là dafay nekk loo xam ne dafay yàq li nga xam ne mooy communication dans le couple waaw xam ne euh, nit ki sooy sëy ak moom yaa xam góor nga yaa xam jigéen nga ngay sëy ak nit ki doo ko déglu doo ko dégg doo comprendre la personne sent que mon partenaire ne me comprend pas mais ki damay waxtaan ak moom mais il ou elle ne me comprend pas ça c'est quelque chose de terrible mooy après nit ki daf koy loolu daf koy jural mu dem uti ku muy communiquer ci biti après nga dégg ñu naan waaw nit ki boo sëy ak sa jëkkër moo war a doon sa xarit soo sëy ak sa jabar moo war a doon sa xarit mais si la personne avec qui tu t'es marié du jël la peine essayer de te comprendre essayer nekk dans ta peau essayer am empathie essayer xam li ngay dund intérieurement lu mu doon mais c'est obligé que di nga dem uti keneen feneen ku lay déglu parce que nit nit rek la tey nit ki mu ngi nekk di garder ay souffrance nga dégg koo xam dafa laa man je souffre j'ai mal sama partenaire du ma écouter du déglu eh, bu ñu amee problème su ma waxtaan ak moom day braqué wu danaan du ma déglu parce que moom amul problème sentirul ni problème am na ci couple bi léegi couple bu mel noonu fan la ñuy muccee fan la ñuy naka la ñuy def ba sauver seen couple en certain moment kenn ci ñoom dina dem uti en doo de euh, de la famille dem ut koo xamante ni moo koy déglu moo koy comprendre moo koy dégg. parce que lu tax parce que nag eh, wax ak ku la déggul wax ak ku la comprendre wax ak ku la dégluwul loolu dafa terrible dafa metti te couple yu bëri malheureusement ci noonu la ñuy dundee couple warul am tabou nit ki da nga war a am courage nekk une personne responsable yaa xam góor nga yaa xam jigéen nga lépp lu war wadd ci kaw si sa dund nga am courage encore une fois jàkkaarloog sa partenaire ngeen lal ko ci table bi waxtaane ko lépp la ñuy waxtaanee lépp lépp lépp lépp lu ñu mën waxtaanee amul. tabu amul parce que lépp loo jéem a nëbb nga jéem koo dëxëñ nga ni doo ko wax tout autant da lay nit ki ensuitement il faut que nga am courage par exemple day dégg ku ne ah sama jëkkër par exemple euh, buggul ma am dara dafa soxor buggul ma am kër buggul ma am lii lu ma bëgg a investir day nekk di ma mere di ma tong di ma lii mais je crois que tey nga am courage jàkkaarloog moom xamal ko ni man sama xaalis maa ko moom am naa droit investir am naa droit sama kër nga merci nga kontaan si nii la demee moo gën nga nëbb ko ko moo gën waxoo ko dara mu dem ba mu yëg ko après lu mu la accuser day yomb te boobaa pour mu am sa dëgg sa kaw dafay dafay dafay yomb kon nit ki aussi nga teel a xam prévenir dafay am solo loolu moytu tout le temps lu ñu lay yeddee parce que nit bu ñu lay yedd lu bëri bu yàggee nit ne yow yaay bi. kon euh, nit ku nekk soo nekkee ci biir sëy en ce moment soo ni sa communication baaxul jëlal la peine nga dem jàngi communication aussi tu te demandes mais sëy bi en fait lan mooy sama objectif. parce que ma nekk ak nit di sëy ak moom te nit kii duma déglu duma ma dégg du ma comprendre samay émotion intéressé ko sama colère sama mer intéressé ko sama kontaan intéressé ko sama ñàkk sama am ko intéressé ko mais que nit ko carrément doo toog nga ni kii lan laa koy doyee kii lan la may dolli sama dundu lan la ma changé sama dund lan la may indil de plus parce que nag foofu day wan juste que ni ñu bëri ñu ngi wax ni dañuy sëy fekk na tuuru sëy moo fa nekk mais lépp lu ñu woowee sëy dara nekku fa loolu dama wax ni perte de temps gënu koo mag ak dajale frustration ak rancœur gu bëri tey couple à chaque fois ngeen am problème waroo mën a nelaw ba yandoor te problème boobu tey taaju leen ko ci table bi ngeen waxtaane ko su fekkee problème dafa bees dafa douloureux au moins donnez-vous vingt quatre heures pour ngeen solutionner problème bi loolu ay règle la war a doon ci sëy tegal seen bopp règle ci biir sëy mooy problème suñ ko amee lu mu ngande ngande ngande bu mu romb 24 heures et que duñ ko teg ci table bi ñu solutionné ko parce que sinon loolay indi dajale loolay indi magasiné loolay indi di euh, xëcc problème bu ko defee sa égo nekk naan la waaw moom kay yaanangu lii yaanangulee di taawu situation mu dem a dem ba nga xam ni problème bi 1 pour la waroon doon léegi dem na ba 10 pour cent regle ko day mujjee metti fokk nit ñi dugg ci pour mu réglé wu. te loolu yëpp je me dis que c'est moo tax problème dañ ko régler depuis mu prématuré beneen bi aussi mooy comment communiqué dans le respect dans le couple mooy communiqué dans le respect day commencer nit ki soo ñëwee di waxtaan ak moom nga dindi intention yi benn bi mooy dama koy wax sama dëgg beneen bi mooy dina ma dégg beneen bi mooy dama koy wax sama fulla ak sama fayda yooyu tey soo dindee yooyu intention mooy sa dëgg mën na bañ a nekk dëggam yow mën nga jàpp da nga nekk nga am dëgg te moom <laughs> du dëggam mën ko bañ a dina la dégg mooy tey bëgg nit ki dégg la comprendre coûte au coûte loolu da nekk intention boo xam ne aussi c'est erroné donc nit ki sooy dem di waxtaan ak sa conjoint nga jiital yéene bu ak ixlaas lu sell mooy waxtaan ngir trouver la paix te trouver la paix léeg-léeg il faut que am ko bàyyi il faut que am ko nangu bàyyi modd il faut que am ko comprendre te nag mu bañ a nekk tout la même personne parce que tey mënul nekk tout le nit ki su jot moom mooy def ay alibi moom mooy def ay compromis moom mooy non il faut que nit ki nga xam fekk ji nit ci sa position mooy à chaque fois nga jotee ak sa conjoint ngeen waxtaan dans le respect mooy diw man de dama seetlu ni temps yi kat ah dama gis ne euh, couple dafa am distance dama gis ne dafa mel daal yaa quelque chose au lieu nga ñëw nan ko waaw dama gis temps yi moom am na ci loo nekk yaa ngi nekk yaa ngi jël sa distance waxtaanal toog man su ma waxee yow doo ma faale su ma non quand tu accuses l'autre soo nekk naan ko yow yow yow yow yaa ngi may yaa ngi may yaa may nit ki soo ko accusé day braqué wu day tëju xool bi day tëju moom bu la bëggoon déglu dootu la déglu donc pour nga écoute bu sereine si sa partenaire mooy avant dara nga du avant dara nga dal avant dara ngeen toog foo xam ne nit ki sooy wax ak moom dina la déglu teg portable yi jàkkaarloo waxtaan avec sérénité bu jaree sax nga téye loxo nit ki xool ko dans les yeux jàpp loxoom di ko caressé wax ak moom ma chérie wala mon man de temps yi dama seetlu ni vraiment. Euh, suñu couple daal dafa am distance boo xam ni sama seetlu rek la am ah. lu ma lu ma gis la te man dama gis distance daf ci créé wu euh, j'ai remarqué que des fois suñuy waxtaan et tout dafa mel doo am écoute wala xëy na doo ma comprendre lu ko waaw su ma xëy doo ma comprendre dooma déglu doo ma non non man dama seetlu ni je ne me sens pas écouté waaw ah, je ma me sens pas aimé wala je ne me sens formulation yi ngay formuler say kàddu tànn yi ngay choisir tànn yi ngay tànn kàddu yi ngay wax. loolu dafay wane juste que ni nit ki soo ko respecté da ngay moytu li ngay wax da ngay segg li ngay wax mais su fekkente ne li nga sentir ngay wax li nga bëgg a wax ngay wax sa yoon nekkul ci bu meree sa yoon nekkul ci bu frustré sa yoon nekkul soo ko manqué de respect sa yoon nekkul soo ko gaañee boobu couple du dem parce que couple pour mu dem. il faut que nit ki nga respecté ko ba mu sentir ni respecté nga ko te nit ki sentir ni respecté nga mooy délicatesse bi ngay utiliser sooy jëflanteeg nit ki nooy bi ngay utiliser respect bi ngay utiliser mais moytu bi ngay utiliser parce que nit ki soo nekkee moom te ragaloo ko ñàkk dëgg yàlla soxla soxlawul ngeen di nekk. parce que nag suñuy wax bëggante dëgg suñuy wax couple dëgg mooy nit ki délicatesse bi muy àndal ba nga xam daf lay ragal ñàkk dafay ragal aussi def loo xamante ni après dafay jur conflit seen couple te loolu je crois que il faut que ñu bàyyi ci xel ci en certain moment. beneen bi aussi ñi nga xamante ni tey suñu amee naqar wala ñu problème dañuy préférer rester dans le silence noppi sa partenaire di laaj lu ma la def nga ne ko non defuma dara nga ne pat jàpp sa ñàmbur loolu signe d'immaturité la. tey punir la personne par le silence signe maturité ku koy def da nga képp kuy tonge da nga immature parce que nit bi mature day affronter ses peurs affronter li nga xam ne mooy problème am c'est pas que dama nekk en colère sama xol dafa tàng sama xol mooy nga dépasser say émotion dépasser sa yëg-yëg dépasser li nga xam ne moo lay gaañ pour mën a toog waxtaan nit ki tey même bu fekkente ne yow là tu ne sens pas que da nga bëgg a waxtaan su la sa partenaire laajee loo xew nga ne ko dinañ ci waxtaan après la je ne me sens pas bien du tout loolu mooy yar ak teggin ak respect soo demee ba bëgg a waxtaan moom nga ne ko ah je voulais qu'on parle de l'autre jour li nga xam ne moo fi xewoon bu ko defee nga mën waxtaan nit ki xam ne tongoo ko su soxlaa dara bu la laajee nga jox ko su waxee ak yow nga tontu ko loolu mooy nit ki tong ko mais su fekkee ngay tong nit ki yow bu dee moo la daan tàngal sa kafe yow góor dootoo ko sant tàngal café bu dee moo la doon defaral say say say yére dootoo ko laaj maanaam doo ko laaj danga koy boycotté carrément yow jigéen tamit soo toogee sa jëkkër doo ko laaj dara ah bu jotee nga woon ko ginnaaw def di di fu xale yi fu infantile et pourtant mën nga toog nga waxtaan ak nit ki ngeen résoudre ko tu ne sens pas que là tu parler parce que tu en colère mën nga nit ki ah man je préfère wax ci après parce que là dama mer mënuma ci wax moom dina comprendre danga mer. yow tamit nga accepter nit ki que ni moment bii dafa mer waaw parce que am na ñoo xam ni du ñu accepter que ni da nga mer dañ la a pousser au bout bëgg par force nga waxtaan ak ñoom parce que ñoom dañu sentir ni dañu bëgg a waxtaan par force am na nit ñoo xam ne supporter wuñu silence bu ñu gisee nit ki nekk dans le silence dañu commencé di wax di wax di wax ba yokk xar mi karaw ça ne se passe pas comme ça soo fekkente nit ki dafa mer tu respectes temps wu colère kii ah. il a besoin euh, du silence il a besoin du calme pour mën a digere naqaram donc je lui donne ce temps là et que yow tamit nga accepter loolu su demee ba nit ki décider waxtaan ak yow nga arrêté naan ko waaw nangam sangam yow li yow non non tu essayes waxtaan ak nit ki ngeen trouver point d'entente nga xool nit ki bu meree moom nii lay réagir tu l'acceptes parce que il est comme ça mooy yow tamit nga dafay effort xam ne soo meree meilleure des réactions c'est pas de garder la silence le silence du coup nga essayer soo meree nga jéem a julie ba nga xam ne le minimum di nga essayer bañ a dagg dara bañ a changer dara ba nga xam ni mere ni du tere nga bëgg ko mere ni du tere nga prendre soin de lui mere ni du tere nga continuer gentil du continuer nga nga courtois toutes ces nit ki da koy jàng pour mën ko am mënoo koo tëb tëb rek am ko comme ça mais tu dois le travailler en toi. beneen bi aussi mooy ci biir communication yi ñu arrêter wala éviter di euh, accuser nit ki tout le temps wala di ko juger ndax nit ki su fekkente da nga ñëw ne ko waaw def nga lii def nga lii def nga lii yow da nga mel nii danga mel yaa ngi juger nit ki gis nga nit boo tàmmee jugement sa gémmiñ bay boo na nga koo bàyyi. parce que yow bëggoo ko la juger amul benn doomu aadama bëgg ko juger ci kaw parce que intention doomu aadama nit mënu koo xam. yow ni ngay liiree lecture bi ngay am ci comportement nit loolu yow la sa réalité la sa intérieur la say émotion la sa vie sa vécu la sa passé la mais nit ki intérieur am émotion am réalité am vécu am passé am ça propre kon moom interprétation bi muy am ci ay acte am ko am yow ci l'acte des autres donc képp kuy jugé na ko arrêté xam ni acte d'immaturité la on ne juge pas l'autre même bu dee sa conjoint la tu peux voir ses actes mu semblé la bizarre wala nga am ci benn interprétation mën nga ko ne ah nit ki mën nga ko ne man lii nga lii nga def par exemple di nga dégg ku ne ah man tu m'as du respect nit ki ne pourtant man je ne t'ai pas manqué de man je crois que par exemple di nga gis koo xam ne bu mel ne day claque la porte l'autre mu ne ko tu m'as du respect mais man je ne t'ai pas manqué de respect parce que soo meree pourquoi tu la porte pour woon da mer donc c'est à toi ah, euh, solo. mais su fekkee ne nit ki da nga ñëw waaw yaa ngi ni boo meree tu na tu n'as aucun respect tu ne respectes pas les gens tu claques les portes donc là nit ki sentir da nga koy jugé na bañ a changé mën na braqué wu mën na bañ a jël benn benn benn euh, leçon ci li nga koy wax même bu dee am dëgg moo tax jugement baaxul même boo amee dëgg éviter de juger nit ki ne ko man je sens que soo meree tu fais ça tu fais ça et man euh, vraiment je vois que le fait que quand tu es fâché tu la porte sa je ne me sens pas respectée quand tu te comportes ainsi nit ki soo ko waxee loolu moom dina dégg ni kon moom moo sentirul di danga ko def boo ko laajte la porte et ça ko defee nit ki dina gis ne ah kon vu que mon mari ou ma femme ne se sent pas respectée quand je me comporte ainsi donc je dois faire des efforts yow tamit nga xam ne lii du tëb rek changer jukkoom la mun naam taamu na ko ci kër yaayam kër papam kon patience à chaque fois mu def ko ngeen di ci waxtaan pour mu éviter bàyyi ko. yow tamit euh, en tant que homme wala en tant que femme tu ne te sens pas aimé wala tu ne te sens pas respecté tu donnes des exemples concrets pourquoi euh, par exemple nit ki yow bëggoo ma soo ma bëggoon di nga ma de nit ki man je ma yaa ngi nekk ci xolam yow mën na am ni nga am yow li ngay wax mbëggeel moom waxu loolu mbëggeel donc nit ki bu ko lii doo def laa mën nga ne nit parce que je vois que euh, selon moi si tu aimes une personne tu ne fais pas ceci ceci moom mën nañu ne ah man j'ai fait cela cela parce que mu jox lay explication et là c'est facile à comprendre et là bu boobaa yow tu peux dire que ni d'accord kon man maa ko interprété nii mais moom nii la ko jàppee parce que suñu amante confiance dinañ mën a évoluer nit ko aussi au lieu nga ko respecté woo ma respecté woo ma ne ko man je ne me sens pas respecté parce que je sens que quand tu me parles tu me hurles dessus et wax ak man du ma hurler dessus j'aime pas qu'on me hurle dessus et nit ki la fait que ngeen ko bugguma ku ma yuuxu donc man dama santi respecté woo ma parce que euh, sooy wax ak man nga éviter di ma yuuxu loolu dina tax tey nit ki suy wax suy wax ak yow xam ni buggoo ko hausser le ton et loolu am na ça te met mal à l'aise ça te nga changé ko nga xam ne aussi moom loolu su bokkee ci jukkoom du tëb tëb changé ko c'est avec du travail en soi lay dañ te pour ngeen dimbalante pour ngeen màgg pour seen communication mën a dëgër chaque semaine ku nekk na am liste chaque jour bu ngeen jotee jotee yu sew yu sew yi ngeen koy bind bañ ko fàtte chaque quinze jours wala chaque semaine ngeen taaj liste bi ngeen wax ah man je me suis cela keneen itam teg listam ngeen confronté ngeen waxtaan évoluer ah donc kon nañu éviter kon semaine prochaine suñu challenge ji mooy nañu éviter bu ñuy waxtaan di yuuxante nañu éviter bu ñuy waxtaan di werante nañu éviter accusante ak jugement c'est comme ça soi parce que couple dafa am bakkan le toi le moi le nous et ce nous dafa juddu am date de naissance am tur am sant am dundu et nu ngeen koy dundalee mooy ci yéen ñaar la dépendre ñaar bu ci kenn bàyyee bu ci kenn changé bu kenn xàddee rek du dem kanam donc da ngeen di investir ci seen temps pour mu boobu mën a dund investir seen temps bokk na si génne yi ngeen di génn promenade yi ngeen di promenade waxtaan yu neex yi ngeen di waxtaan toog évaluation de couple ah échange yi ngeen communication bi ngeen di communiquer et ku ko jàngul malheureusement da ngay da am couple boo xamante ni du équilibré kon suñu xamee ni yàlla suñu borom bi muy sàkk sëy dafa ne daf ñu sàkk dafa sàkk góor jigéen ngir ñu sëy waaye sëy boobu lan mooy lan lañ ciy jëlee mooy mawadda ak raxma muy euh, l'affection et la bonté enfin enfin ñu dund li nga xamante ni sax mooy sérénité kon su fekkente ni sa couple amul sérénité stress la xuloo la jooy la angoisse la xam ne du couple boobu la yàlla digle déedéet couple mën na am ay mën na may baax mun na am difficulté de la vie mais couple warul nekk souffrance quand la personne souffre dans son couple ceci dit que couple boobu baaxul ci yow daf lay yàq difficulté de la vie mooy ñàkk liggéey pauvreté maladie ah ñàkk doom ñàkk par exemple euh, fay sa facture mënoo fay sa location ah accident des choses yoo xamante nit ki euh, donc ça ça peut être les difficultés de la vie belle famille bi du genre comme ça mais pas le manque de respect pas les insultes pas les blâmes pas nit ki bañ a def devoir am pas nit ki dissocier désengagé wu et bàyyi la avec tous ses devoirs yow nga war a def euh, devoir am à sa place loolu nekkatul couple buumu jaam lañ koy woowee kon yàlla suñu borom ba muy wax couple bi finalité bi mooy sérénité ak dal mawadda ak raxma muy la moox la l'affection et la bonté kon dafay nekk couple boo xamante ni dafay am njekk day am rafetal loolu su mënul am ci couple mooy gaañante rek ngeen di def mais sëyu leen da ngeen di gaañante boobu fat du mal mais sëyu leen te sëy boobu du ngeen ci am loo xamante ni tey mooy satisfaction ndax tout le temps doomu aadama bi su fekkente ni yow tu es incapable de s'engager dans le couple yow couple nekk nga ci da nga war a takk jabar takk nga jabar ah, jeex na point final pour amul lenn lu si war jigéen bi da nga war a sëy sëy nga rek amul leen lu la si war kooku si dit que tu n'es pas engagé bëri na ñu nekk ci biir couple te ils ne sont pas engagés ah ñoom pour ñoom ils sont libres ils sont célibataires yoruñu kenn parce que duñ ci def seen alal duñ def seen jot li ñuy def mooy assouvir seen besoin consommation kese la ñuy def mais duñu duñu engagé wuñu ceci dit que kon duñu investir ci biir couple bi te ça c'est dangereux parce que tey suñu waxee couple ceci dit que tu t'investis dedans ton temps ton argent tu le mets le fait que yow sa engagement c'est uniquement j'assouvir mais besoins et après on en passe loolu du couple malheureusement ndax tey di nga gis ñaari nit di sëy bokk benn kër bokk benn lal sa jabar feebar wala sa jëkkër feebar doo xool nit ki ndax dafa soxla garab wala dafa soxla ndox wala dafa soxla dem hôpital wala dafa soxla di nga room nit ki mu feebar di souffrir di jooy di jàmbat nga di ko romb gauche droite gauche droite gauche droite su woowul ay dëkkandoom wala woowul ay mbokkam ñu assister ko ci maladie boobu conjoint bu mu dëkkal du ko du ko assister loolu nag dama ne dafa dépasser degré d'humanité ndax nit su fekkente ni da ngay sëy moom mu capable tiim la nga feebar mu xëy romb la xoolu noo def lijjantiwu la laaju la loo soxla nit kooku sëy ak moom déjà dafa dangereux parce que tey mën nga dee ci kaw lal boobu mu mënoon la sauver wala tey nga fatt wala nga étouffé wu mu mënoon woo ambulance ñu sauver la coûte au nga dee comme ça parce que uniquement on t'a négligé tey damay wax ni sëy boobu moom bu dee ca nga nekk xoolal xoolal est ce que jar na ko am na sëy yoo xam ne jaru ko ndax sëy kenn du ko jëndee bakkan benn sëy jarul bakkan ci àddina benn benn benn sëy jarul sa vie ta vie est sacrée ta vie est fort yàlla daf la bind sa dund parce que dafam importance kon bu ko tayalee pour benn doomu aadama bu mën a doon kon suñu bàyyee xel que ni sëy bu ñu wax investissement rentable investissement boo xamante ni ku nekk dañ ci war a gis sa bopp mooy sëy mooy tous les deux dañuy contribuer seen temps seen psychologique seen jot seen xaalis seen spiritualité pour lan pour jàppale la nous en tant que couple bi mu màgg tu as le toi tu as le moi couple bi dafa war a màgg te màgg bi ci yéen ñaa lay dépendre comme ni ñu ko waxee beneen bi aussi ma di ko dénk jigéen ñi parce que tey jigéen dafa nekk koo xam tey su duggee ci couple la majeure partie mooy perte wala mooy gagné dans quel sens tey mooy perte parce que tey soo duggee ci couple nga nekkoon jeune nekk jànq sa virginité kenn dootu ko mën delloo soo juree benn doom sa yaram sa corps dafay déformé wu nga jur ñaar jur ñett tu n'es plus cette jeune fille belle euh, physiquement lépp normal amatoo ko kon tey même bu fekkente ni couple bi génn nga ci dootoo récupérer mukk li nga ca ñàkk. même boo toogee ci couple bi aussi xamal ni ti as investi ton corps ton naam góor lu muy investir xanaa xaalisam ak xëy na psychologie am comportement am à part ça investirul corps am et donc yow jigéen sa corps et sa âme moom ngay investir looloo tax tey société euh, africaine yi xam ni yow yaay gën a gaañ ci sëy bi moo waral ñu la ci teg lu bari parce que xam nañu vu que yow yaa ci gën a gaañu kon yow yaa war a yow yaay ki war a gën a muñ. te loolu dama ne binduñu ko fenn en certainement sëy su fekkente ni sa âme sa corps sa sa virginité sa jeunesse sa xaalis sa psychologie tout daf ciy dem te doo ci am benn benn reconnaissance doo am jàmm doo ci am paix doo ci am sérénité tu parce que sinon da ngay sacrifier sa bopp te kenn jaru ko comme ni ma ko waxee. beneen bi aussi mooy da ngay gis la plupart si nit ñi di wax nii ah sama jëkkër xamalu ma ko dara wala sama jabar xamalu ma ko dara mais comment se fait-il ngay sëy nit te doo ko xamal dara. su fekkee ne nit ki dafa bëgg a partager ta vie partager la ñuy wax de partager ta vie su fekkee ne nit ki dafay war a partager ta vie ba pare nit ki xamaloo ko dara mais kooku dëkk moom déjà danger la parce que mën na la nëbb des choses horribles tey nit ko capable nëbb la famille wala nëbb la des choses yoo xamante ni tey wala di sëy ak nit ki bi def des choses illicites di la ko nëbb bu bés dina nga tombé si soo gisee ni ki nga nekkal cachotière la teelal lijjanti problème boobu mu féete boor. parce que bu dul loolu yow si jëm bopp yaa ngi transformé wu nekk détective privé wala nga nekk policier te parce que lu tax parce que la nit bi lay nëbbatu daf la attirer sa curiosité pour nga lox mboot ko pour nga enquête ko pour nga loxote ko parce que ñëpp ay doomu aadama la ñuy ay être humain te soo nekkee nit boo xam ne du nit bu transparent du nit bu fiable daf lay yóbbu changer sa jikko nga nekk beneen nit te loolu dama ne dara jaru ko ci kaw suuf sëyeeg ku fiable mooy yaa ngi dugal sa loxo ci foo xamante ne jaru ko. Parce que nit ki s'il est incapable de partager sa vie, mais qu'il n'a qu'à rester célibataire, la vie n'est pas compliquée. Et avec ça, tu as vu qu'on a fait des nit nga gis ni ya gis nit ki euh, da nga incapable xaaritoo ak moom tey des fois dégg ku naan waaw góor jigéen bu ñuy sëy soxla wu ñu xarit ci mbedd mi et malheureusement la majeure partie sëy vu que dafa am ay mal intentionné malsain système de domination système duma ko yóbbul duma ko nangam sangam sangam mu dem ba nga xam ne da ngay seeg nit ki mu nekk sa ennemi la majeure partie dañuy wax ni euh, maanaam ñaar ñiy sëy ñoo gën a nekk ennemi ci kaw suuf des fois parce que dañuy gis nit seeg nit te pourtant boo ko nekkoo ragal mu ne la kii may fanaanool fan mun la majeure partie dañuy wax ni ci couple yi dañuy tëdd fanaanoo ak seen ennemi loolu problème la war woon demee noonu. ndax nit ki sooy sëy ak moom dafa war a sa ami sa confident nekk ko xam ne dangay partagé ak moom nekk koo xamante ni eh, dangay kontaan ci ay bu ay naqaram ñëwee nga nga partagé ak moom de consolé ko dalal ko mais su fekkee ne sëy bi source la boo xamante ni source de défante source vengeance nekkatul xaritoo nekkatul jur jàmm sincèrement dama ne perte nañu objectif bi perte nañu aussi la moo taxoon nit dugg ci sëy mooy nit ki eh, couple yi xam ni ay couple bu ñu nekkee su may wax encore une fois am confiance mutuelle mooy ku nekk nga cultiver confiance ci sa bopp parce que gis nga ni soo amul confiance en soi doo mën a am confiance à l'autre te tey dañuy gis koo xam ne le fait que uniquement jabaram di wuy téléphone mu ñëw envers moom jabar ji déplacé wu rek jest uniquement geste boobu rek moom mun na ko réel def ko la conflit du siècle lan moo tax mu war a déplacé wu lan moo tax mu war a li te fekk nit ki bëggul nga dégg li muy wax mën na am yaayam lay waxal mën na am secret la mën na am loo ni yow sa yoon parce que nag nañu waxante ne pas dire que da nga ko takk wala daf la wala dafa sëy yow que ni da nga war a xam secret yi muy partagé ak famille wala ak ay xartam parce que secret secret la tudd encore une fois donc sànq maa doon wax ci niveau de nit ñi mën a nëbbatu donc nëbb suñ ko wax mooy li la concerné yow sa vie mais pas li concerné keneen parce que li concerné keneen keneen la concerné ndax couple ba des fois dañuy dugg ci ay jëw yow sa sa xarit wax la sa kër nga ñëw taajal ko sa jëkkër ah sama xarit nangam sangam sangam sangam bu subaa mu jël ci loolu ne ci ciix di la ci wax du n'importe quoi parce que yaa ko confié woon sa secret xarit ndax tey c'est très rare tey gis góor boo xam ne day confié secret xaritam jabaram loolu c'est très du ma ne amul de mais c'est très rare kon nañu jéem a am benn discipline boo xamante ni waxtaan teg couple des bonnes bases lii ñeneen ñi dund loolu ça ne nous concerne pas buñ si natt suñu couple ñun li ñuy dund ñu jéem a xool naka la ñuy def améliorer ko ñu jéem xam naka lañuy ñuy partager aussi suñu dund d'une manière boo xam dafay équilibré kon euh, audio bàyyi gudd bu ko defee ñu mën a ñu mën a waxtaan euh, déglu ko aussi ak patience comme niñ koy waxee encore fa ñu xam ne say but bi du ragalante but bi du defante ñaaw njort bi amul njariñ ndax tey nit ki ñaaw njort yow sa jëkkër buy téléphone sax bu la séenee nga ñëw mu coupé wala mu déplacé nga ne mu ngi doxaan donc ñaaw njort bi aussi dafa détruire couple bi bu bëri dafay tax ñuy amplifier problème yi day tax tey boo gis sa jëkkër yu téléphone ah ngay ñëw mu déplacé wu rek nga ni waaw mu ngay doxaan jël affaire yi amplifier ko ngandal ko ñaaw njort te comme ni ñu ko waxee une fois couple ku bu ngeen amul benn confiance en soi bu dëgër am benn rafet njort bi du ngeen mën a séesee bu yàgg. ndax ah, la plupart si nit ñi dañuy màgg ak ay insécurité màgg ak ay am jalousie maladif. nga dugg ci say yóbbaale say peur say insécurité say jalousie ah bu ko defee ngay nëbbatu fii bu ko defee ngay ragal fii boo gisee sa jëkkër wala sa jabar def quoi que ce soit nga pétaar si kawam alteeru jàpp ni c'est la fin du monde gis na keneen wala bàyyi na la te fekk na c'était pas ça malheureusement. kon mbokk yi ñu yemale fii euh, suñu podcast di leen wax ngeen partage ko ngeen abonné donc euh, ñu bàyyi xel ci conseil yi ñu appliqué ko bu ko defee dina tax euh, ñu am aussi yéene indi ci couple yi jàmm xam ne couple du xare du guerre tout le temps dañuy wax ci couple yu bëri ba na euh, nit ñi dañuy fàtte ni sax que ni suñu liggéey du rek couple yi mais aussi on la là pour accompagner les gens euh, un, comme coach euh, comme coach de vie personnelle euh, au développement personnel bu ko defee nit ki mën a développer confiance am defar jukkoom et tout donc dee leen appliquer conseils parce que bu ngeen ko appliquer di ngeen gis seen dina changer di ngeen gis seen dund dina am amélioration yu nett bu ngeen ko appliqué bu changé wul ngeen ñëwaat fi fekk si ma ngeen wax ma ko parce que lu tax mooy euh, le fait que tey ñuy am ay retour dinañu permettre ñuy xam est-ce que réellement problème bi ci communication bi la woon wala dafa am leneen lu raxoon ci communication bi encore une fois là je parle des personnes yi nga xam ne amuñu benn trouble comportemental sont des personnes normaux parce que kenn trouble de de de la personnalité kooku malheureusement amul communication booy appliqué ci moom mu mën a jàll kon ñu ngi lay def salaamaaleykum wa rahmatulah